asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokk yi wër senegaal di nuyu kull koo xam ni yaa ngi nekk ci diaspora bi di nuyu képp koo xam ni yàlla dogal na sunu wax ak suñu xalaat yàlla dogal na nga di ko dégg ñoo ngi nuyu ñëpp di leen siyaare bu baax a baax. yow xam nañ boo xam ne bu ñëpp xam. bi mhm. nga ñëpp yëg yëg nañ naka mbaam yi loolu suñ ma ci laajee damay am lu ma neex trop ndax dangeen ma fekk ci sama lancé boo ma seetloo tey nekkuma ak loo xam ni neex na ma tey dama nekk ci jamono boo xam ni daf maa metti ndax lu mel ni mbaam ñu sargal ko sargal bu rëy ci senegal dem ba nit ñi xam kan mooy mbaam. ñu wëlbatiku dégg ne ñu ngi rey mbaam yi di ko lekk yematuñu ci dégg boobu ñu teg suñu bët gis ñu rendi ay mbaam tëral leen muy lu ñu metti loo xam ni fu mu ñu commencé metti bi fu mu commencé xam nañ ko mais foo mu yem xamuñu ko ndax Grand Mbaye mbaam ci Sénégal avant indépendance mbaam la woon tey baykat bi lu mu mën a bay ci kaw suuf lu mu bari bari doo dégg mu ko mu ne am naa ñaari camion am naa ñaar ñetti camion soo déggee muy wax rek da naan am naa ñaari mbaam am naa ñetti mbaam parce que mbaam la woon avant oto mbaam la woon avant camion mbaam ànd ak ñun di liggéey mbaam dimbali nu suñu Sénégal mbaam dimbali ñu ba oto yi ñëw mbaam dimbali ñu ba lépp ñëw ñu wëlbatu ko jël mbaam di ko rey loolu metti na ma mettit boo xam ni mënuma laa wax nu mu mel munu ma laa wax nu mu toll ba tax na bu soobee yàlla fas yéene nañu lépp luñ ci mën ci xeex dinañ ko def incha allahu dinañ altine dinañ dajale képp ku yore mbaam def bis bis boo xam ni mars lay doon ñu jël mbaam yi takkal leen ay brassard rouge ànd ak ñoom ñu def mars wane ni lii naqari nañu lii dafa war a jeex ndax mbaam yi ay citoyen lañu à part entière nag citoyen boo xam ni commencement ba la to commencé woon di sonn ba jamono jii ñuy toll kon mbaam yi am nañu lu ñu metti ci ñi leen di rey. tu vois kilo yàpp mbaam ay ay 600 ay ay ay ay ay mais bu doon yàpp mbaam sax baax na yàpp mbaam am na ñu ko moom di rey mbaam di ko lekk kooku ñooñ seen diine da leen koo may mais mbaam sëf bii ñuy rey tey boo ko joxee chrétien bi du ko lekk. boo ko joxee musulman bi mu xam ko du ko lekk ñoom ñëpp koo ci jox du ko lekk c'est parce que ñoom ñëpp xam na ne mbaam war nañ koo doyee leneen lu dul rey ko di ko jaay wax dëgg yàlla te it mbaam dafa am bopp yàqal nañu bari ñi ngi rey mbaam yi mais nañu gëm ne yàqal nañ ñu bari ñiy jaay bool yi ñu bari dootu leen wóolu ñiy saam ay palaat di jaay ñu bari dootuñu leen wóolu bëri na ci boucherie yoo xam ne ñu bëri dootuñu leen wóolu kon ñii nga xam ne yëpp ñu ngi leen di yàqal seen liggéey ñu daan seen doole te ñooñ ñuy jaay lu baax mais yàpp mbaam bi ñu tudd tax na loolu yëpp bëgg a yàqu kon xam na ne mbaam am na fu yàlla teg nan bàyyi mbaam yi ñuy rey il faut chasser ça il faut chasser ça personne ne tient les mbaam il faut laisser les mbaam travailler comme nous sont des citoyens comme nous voilà. mais yow xam nañ la ci promotion mbaam promoteur mbaam ay courses mbaam. Mhm. boobu kañ xalaat course mbaam bi ni ma dikkee feetu indépendance daa jot muy le 4 44 kees waroon a aye lii du feetu indépendance yàlla dogal ñu wooñu ci gouvernance gouverneur toog CDD la toog. ñoom ñëpp ñu toog ñuy waxtaan ak artistes yi ci kees yëpp ñuy waxtaan nan lañu ñu war a def ba feet bi neex ci biir kees artistes yëpp ñu laaj leen kenn ku ci nekk wax ban boor nga jëm pour def yow say théâtre ñii di théâtre ñii di def ay bale fecc ñii di def lu ne koñ bu ne ci kees ñu tudd ko mais booba ba léegi la ma toog di déglu dégguma benn yoon ñu tudd monde rural bi dëkk dëkkaan yi wër kees artistes yi biir kees rek la ñu yem jàlluñu ci monde rural bi man loolu ba mu amee ma xalaat ne mais xale yi dëkk ci àll bi dañoo bokk ci indépendance Sénégal la ñu bokk te dañoo war dund ak ñun indépendance bi ñoom it dañ cee bokk moo tax ma xalaat ma ni gouverneur man ci àll bi laa jëm ñëpp reetaan Sanokho looy def ci àll bi man leen damay def course mbaam ñëpp daanu di reetaan indi ne pour ñoom affaire boobu da leen a jaaxal ma ni gouverneur xale yi dañoo bokk ci indépendance bi xale yi dëkk ci dëkkaan bi ay citoyen sénégalais lañu dañoo bokk ci indépendance bi dañ ko war a santir mu ne ma effectivement ma ne ko dinaa dawal sànge benn dawal kër simbara benn dawal jasab benn su ko defee vainqueur yenn foofu lu trois avril ma indi leen fii ci diwaanu Thiès ñu def fi benn final su ko defee xale yëpp ànd ak seen i mbaam ñëw supporter mbir mi mën a jaar yoon waaw course mbaamu ren bi moom dafa jël hauteur bu mag ndax yàlla dogal na ba may tàmbali maag waa les femmes développement rek ñoom lañ ci àndaloon ñu may jàppale ñu ñëw ci course mbaam bi suma leen invité ñu ñëw jël ay quelques chaises toog ma defar benn tànt toog ñu daal di pare ku ne dem xale yi booba taa ay ñaar téeméer laa leen doon jox ay ñetti téeméer ay ay benn paquet suukar yooyu laa leen doon jox ca jamono jooju muy dëpp depuis le le le le 2004. muy 2004 ba yàlla dimbali ñu muy dem di dem di dem tey jii ba ay ambassadeur di ñëw ci course Mbambi boo seetoo ren am na ñaari ambassadeur yu ñëw am na koo xam ni adjoint maire Italie la mu ñëw am ay touristes yu jógee fépp daal di dikk ci bis bi waa Ndakaarook waa Mbuur ak Sénégal ñëpp di ñëw di kar si bis bi musuma ci woon a am ay ay autorités yoo xam ne danañ daan ñëw muy autorité ku toll ni gouverneur mais gouverneur daaw ak ren dafa ñëw teew préfet ñëw teew monsieur le maire ñëw teew maire commune d'arrondissement yi ñëw teew député yi ñëw teew képp kuy autorité ñëw nga teew jëmmal bis bi sëriñ yi ñëw teew sama sëriñ sëriñ a sekk borom ndigal ak ak dégg nga maam ay sëriñu mbakke mbàkke ay sëriñ yoo xam ni sii lañu sant ñooñu ñëpp ñëw fekk si ma ci bis bi wax dëgg yàlla ñëw toog ca tirbine ba di seetaan course bi ñaanal ñu ci auteur bu mag la jël sant yàlla xale yi gën a kontaan joxe nañ ay téléphone joxe nañu ay offeur joxe nañu dégg nga maam ay saakuy ceeb joxe nañu ay coupe a ah, dégg nga maam ku ci mel ni ah Cheikh Sène ak ay doomam ak joor ñoo may indil fukki coupe xoolal fukki coupe ci benn course xam nga ni loolu lu yéeme la kon mi ngi avancé dem nañu sax ba ne ma xajatul fii ñu koy def war nañoo changé fi ñu koy def nga xam ni màgg na kon nag wax dëgg yàlla war nañoo sagal mbaam yi waaw sama kàddu gu mujj mooy damay kontaan ci seen bii ma jël ndax seen bii ma jël. yàlla dogal na lii muy def bu ko ñëpp defee ah waxuma la ne dina génn Sénégal waaye dina génn sax fudul Sénégal te it partout lañ koy teg ñëpp koy seetaan fi mu ne ku dëkk bitim réew namm Sénégal bu xoolee tey jii saa na ko taxaw kees 24 di waxtaan lii xolam dellu ci kees xolam dellu ci Sénégal développement nii lañ koy defee kon nag maa ngi leen di ñaanal kees 24 gën a yaatu mbay Samb mi ko yor gën a jëm ca kanam ñun ñëpp nag ñu koy consulter di ko seet ndax njariñu dëkk bi rek njariñu Sénégal moo nekk ca kees kees 24 jërë ngeen jëf merci beaucoup je vous